ci dëkk bi ci njaboot gi ci réew mi ci lislaam bi yal na ko yàlla defal tawfiix ba mu àggale ko sëñ ma jooja taawam teew na ci bis bi waaye yaram wu naqari moo tax mu jóg macha allah ñu ngi nuyu sëriñ as ndigal teew na macha allahu teew na fi nee na teew na fi. ànd ak ñun ci bis bi ànd ak ñun ci bis bi. sëñ Maam Moor sëriñ Maam Moor. nuyu nan la nuyu nan la. nan la sëriñ Ibrahima Ba Abdourahim nuyu nañu ko. ziara nañu ko. sëñ Góora sëriñ Góora. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu. la ziara ñu ngi lay ziara. waaye ñu ngi nuyu. ñu ngi nuyu nag. nuyu gu ànd ak sant. nuyu gu ànd cant. sëriñ Alpha sëriñ Alpha Cissé. sëriñ Alpha yal na yàlla gën a yokk sa xam-xam yal na yàlla gën a yokk sag bi yal na yàlla gën a dolli sag bi nee na conférence bi am na solo tariqa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif damay bañ damay bañ ñu yem ci may yi ci may yi rek may yi moom da ngay xuus xuus xuus xuus am ci tuuti am ci tuuti waaye buñ koy wax nag. waaye buñ koy wax nag. yëngal na ay cër. yëngal na ay cër. yëngal na deret. yëngal na deret. waaye taxul nga am ko. waaye taxul rek nga daal di am noonu. waaye liy dimbali nit. waaye liy dimbali nit nag. mooy jikko yi mooy jikko yi. sa conférence bi. sa conférence bi ci jikko yi nga ko sax def. yàlla na yàlla may. yàlla na yàlla may. dégg dégg. ak topp. njabootug baay Mouhamad Faye waaye njabootug baay Serigne Modou fay nuyu naa leen nuyu naa leen ziar naa leen njabootug baay Modou Mariam njabootug baay maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziara maa ngi sëñ monsieur le maire maa ngi nuyu monsieur le maire euh, sëñ Gora Ndiaye sëriñ Gora Ndiaye ndax moom la bëgg ndax loolu la bëgg. ñu ngi koy ñaanal. kon monsieur le maire ñu ngi la koy ñaanal. yàlla na ko yàlla yombalal. nee na yàlla na ko yàlla yombalal. macha allah macha allah. ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. kaddu ma yëkkati. nee na kaddu yi ma yëkkati. du yàgg du yàgg. kaddu ñaan la. kaddu yi ñaan la. kaddu yi sant la. kaddu yi cant la. maa ngi ko yëkkati nag. maa ngi ko yëkkati nag. ci ñaari tomb ci ñaari tomb. kaddu njabootug Baye Mouhamadou Faye. kaddu njabootug Baye Mouhamadou Faye. bañ bis bi gën a bañ jotaay bi gën a yàgg. bañ bi gën a yàgg. moo tax ñu dugal seen kaddu. ci sama làmmiñ ci sama làmmiñ. kaddu gu njabootu Baye Mouhamed Ndaw. kaddu gu njabootu Baye Mouhamed Ndaw. muy kaddu cant. muy kaddu cant. dañuy sant yàlla rek dañuy sant yàlla rek. subhanahu wa taala ndax Baye Alpha Mamadou. ndax Baye Alpha Mamadou. da daan wax ni. da daan wax ni. mag ñi. mag ñi liggéeyal nañ liggéeyal nañ ñu liggéey boo xam ni liggéey boo xam ni buñ ñu ko defalul woon ñu ko defalul woon it sunu njàmbaar sunu njàmbaar sunu daraja sunu daraja sunu xel sunu xel sunu alal sunu alal mayuñu ko liggéeyu mag ña nag liggéeyu mag ña nag. mooy diriku mooy diriku. ba bisub tey bii ba bisub tey jii. baay Mouhamadou Faye. Baye Mouhamadou Faye. ak Baye Mouhamadou Ndaw. ak Baye Mouhamadou Ndaw. ñëpp di ay Mouhamadou. ñëpp di ay Mouhamadou. seenu kaddu. seeni kàddu du wuute. du wuute. genn kàddu genn kàddu lay doon. suñu borom dafa wax ci suñu borom dafa wax ci alquran qul yaa ahlal kitaab qul yaa ahlal kitaab taalaw taalaw ilaa kalimati ilaa kalimati sawaa'in sawaa'in baynanaa baynanaa wa baynakum allaa na'budan illa allah wala nusrika bihi shay'an wala yabtaxi ba'dunaa ba'dan arbaaban min duunillah Baye Mouhamad Faye nee na Baye Mouhamad Faye siin la dëkk siin la dëkk am na fam pénc am na fam pénc am na fa am nay mbokk am na fay mbokk am na fa alal am na fa alal waaye lépp la lépp la bàyyi ñëw canaba ñëw canaba topp sëriñ Alpha topp sëriñ Alpha Mamadou ngir yàllay kese ngir yàllay kese ndax loolu rek ndax loolu rek la ko ëppale la ko ëppale te loolu rek loolu rek la gis ni la gis ni moo jar a topp Baye Mouhamadou Ndaw Baye Mouhamadou Ndaw am pénc la bàyyi am pénc la bàyyi famille la bàyyi famille la bàyyi famille bu noobul la famille bu noobul bàyyi alal bàyyi alal ñëw dëgmal ñëw dëgmal Serigne Canaba Serigne Canaba ngir yàlla ngir yàlla ndax xam na ni ndax xam na ni yàlla rek yàlla rek la ko ëpp la ko ëppale seenug ànd seenug ànd ak mag ñi ak mag ñi ku xool sa ku xool àndu saxaaba yi ku xool àndu saxaaba yi ak yonent bi ak yonent bi sa xel sa xel day gën a daj dafay gën a daj boo xoolee Baye Mouhamadou Faye boo xoolee Baye Mouhamadou Faye xool ni mu àndee woon xool ni mu àndee woon ak sëñ Alpha Mamadou ak sëriñ Alpha Mamadou sa xel du daj sa du daj fenn ku dul Aboubacar ku ak yonent bi digganteem ak yonent bi Abu Bakrin Abu Bakrin. defal na yonent bi defal na yonent bi. jëf joo xam jëf joo xam ni. moo ko sowe moo ko sowe. dolli ca lam sowe woon dolli ca lam sowe woon. Baye Mouhamed Faye defal na defal na. sëñ Alpha Mamadou sëriñ Alpha Mamadou. jëf joo xam jëf joo xam ni. ca la amee ngërëm ca la amee ngërëm. ca la amee barke ca la amee barke. barke boobu te barke boobu. dootul dañ ba mukk. maam Momar Talla Seck maam Momar Talla Seck dafa bëgg alquran dafa bëgg alquranul karim amul jenn doomam amul jenn doomam ju mu xam ñaqam ju mu xam ñaqam doomam yëpp doomam yëpp da leen a yónni a yónni yóbbu yóbbu leen ci daara yi ñu jàng alquran ba mokkal ba beqi ko sëñ Alpha Mamadou sëñ Alpha Mamadou. bind kaamil bind ab kaamil. ba mu àgg mu jox ko Baye Mouhamadou Faye mu jox ko Baye Mouhamadou Faye. ni mu ko yóbbul waajuram mu koy yóbbul waajuram. mu dem ba ci digg yoon wi mu dem ba ci digg yoon wi. yàlla du tàggu kenn yàlla tàgguwul kenn. mu xiin mu xiin xiin woo xam ni ëmb na ndox ëmb na ndox. mu futti yëreem mu futti ab yëreem. ëmb ci yëreem ëmb ci kaamil laxas ci kaamil bi. gas ba mu xóot gas ba mu xóot. suul pax mi suul pax mi. tëdd ci tëdd ci pax mi. mu sotti ndox mu bëri mu ndox mu bëri. ba mu sawatee ba mu sawatee. mu kaamil mu sulliwaat kaamil bi. dara sikku ca ca. ba mu agsee ba mu agsee ci góor gu mag ci góor gu mag. am na ngërëm loo xam am na ngërëm loo xam. am na ñaan loo xam am na ñaan goo xam. Euh, xajul ci doom xajul sax ci ay doom. xajul ci ay sët xajul sax ci ay sët. képp ku sëñ Alpha Mamadou. képp ku sëñ Alpha Mamadou. njaboote. njaboote. Baye Modou Faye. Baye Modou Faye. moo jàpp sa loxo moo jàpp sa loxo. yóbbu la yóbbu la. ba ca daara ja ba ca daara ja. teg la ci loxol sëriñ teg la ci loxol sëriñ ba. musta tàqali kook musta tàqali kook. sëñ Alpha Mamadou sëriñ Alpha Mamadou. foo gisee sëñ Alpha Mamadou foo gisee sëriñ Alpha Mamadou. gis nga ko gis Baye Modou Faye. jëf jooju jëf jooju nag. jëfi ku dëggu la jëfi ku dëggu la. jëfi sang la jëfi sang la. ku baax la jëfi ku baax moo tax yàlla nag ni wa tarak naa alayhi fil axirina ku bëgg dund ku bëgg a dund. jëfalal yàlla jëfalal yàlla. yàlla nag yàlla nag amul tool tool. yàlla yàlla kenn du ko jox kenn du ko jox. jaamu yàlla yi ci jaamu yàlla yi. ngay jëf ngay jëf rek. jaamu yàlla yi jaamu yàlla yi. ngay def ngay def ba am yàlla ba am yàlla rek. waaye ñooñu waaye ñooñu am nañ ngërëm loo xam ne am loo xam ne dootul dañ ba mukk kon buñ ko tuddee bés bi. ayab alquran ayab alquran. la ñuy feddali la ñuy feddali dong. Abu Bakrin Abu Bakrin. ànd na ak yonent bi te naar yi. danoo mën a sol. danoo mën a sol. solu doomu soxna. solu doomu soxna. doomu soxna. doomu soxna. danoo bëgg. danoo bëgg. muy sol. muy sol. solu doomu soxna doomu soxna. sëñ Basirou Gueye sëriñ Basirou Gueye. ca Thiès ca Thiès. maa ko mës a dégg. a dégg. mu ne ab sëriñ. du ko du costume. du costume. ndax ñu xam la. ndax ñu xam la. weesuwul fii weesuwul fii. mën ngaa génn léegi mën ngaa génn léegi. ñu ñàkk lay teggin ñu ñàkk la teggin. te am na comportement. boo xam ni soo ko yoroon ku la gis dina la war mal Abu Bakrin keroog bi mu duggee ak yonent bi ca pax ma di xotti di fatt pax yi di xotti di fatt mooy mbubu mbay mut fay ma moom jëloon laxas ko ca kaamilu sëriñ Alpha Mamadou Ba Baay Muhammadu Ndaw Baay Muhammad Ndaw dañ koy sant ñu ngi koy sant di ko gërëm ñu ngi koy gërëm. Anas ibnu Malik. Anas Anas ibnu Malik. bi muy nekk ndaw. bi muy nekk ndaw. am doole. am doole. la ñëw ci yonent bi la ñëw ci yonent bi. tàqalikoo ak yonent bi. tàqalikoo ak yonent bi. ba yonent boon ko ginnaaw ba yonent boon ko ginnaaw. waaye diiran li mu waaye diiran li mu ànd ak sang bi. yonent bi yonent bi. musu koo sàbbal musu koo sàbbal. ci dara ci dara. Baye Mouhamed Ndaw Baye Mouhamed Ndaw. bi muy dese ndaw bi muy dese ndaw. dese kartan dese kartan. nekk nekk ci digg dooleem nekk ci la ñëw ci la ñëw ci kër gi. ëttub Serigne Canaba ci ëttub Seexu Canaba. ànd ànd ak sëñ Ibrahima ànd ak Serigne Ibrahima. di ko liggéeyal di ko liggéeyal. ba sëñ Ibrahima ba Serigne Ibrahima. wool ko boppam wool ko boppam. ngërëm ko ngërëm ko ngërëmal boppam. ni ko Serigne Modou dama ni dama ni fa ngërëm yam fa ngërëm yam fa laay tàmbalee di la gërëm di la gërëm teguñu ci ñetti fan teguñu ci ñetti fan sëñ Ibrahima sëñ Ibrahima génn àdduna génn àdduna te sëñ Ibrahima te sëñ Ibrahima ba muy génn àdduna ba muy génn àdduna mi ngi woon ci maqaama moo mi ngi woon ci maqaama moo xam lépp lu mu wax lépp lu mu wax képp kum gërëm képp kum gërëm képp kum ñaan képp ñaan googu xajul ci yow xajul ci yow lépp loo xam ni lépp loo xam ni nag sëriñ Alpha Mamadou sëriñ Alpha Mamadou da ko doon liggéey daf ko doon liggéey Baye Mouhamad Ndaw Baye Mouhamad Ndaw ak ñi mu àndaloon ak ñi mu àndaloon ñoo ko daan liggéey ñoo ko daan liggéey néew na sax néew na sax ñu daan woote ñu daan woote kër uh, toolu àllarba toolu àllarba xoolal tool yooyu xoolal tool yi fulum fulum gusaas gusaas cabe cabe kajoor kajoor ak yeneen i tool yeneen i tool moom moo doon jëwriñ moom moo nekkoon jëwriñ ci bu nu ko bayee ba pare. bu nu ko bayee ba noppi nag. mooy dem wër. mooy dem wër. taxawu tool yi taxawu tool yi. jaay ko jaay ko. def ko enveloppe def ko jox ko Serigne Canaba jox ko Serigne Canaba. waaye Serigne Canaba. waaye Serigne Canaba. def na ci moom. def na ci moom. tarbiya boo xam ne tarbiya boo xam ni. Baye Mouhamed Ndaw Baye Mouhamed Ndaw. dara feesul bëtam dara feesutul bëtam. ak mbaax rek ak mbaax rek. moo fees bëtam moo fees bëtam. Serigne Canaba Baye Alpha Mamadou. Serigne Canaba Alpha Mamadou. Euh, Njuga Kebe. Njuga Kebe. wala Alxaaji Njuga Kebe. wala Alxaaji Njuga Kebe. daf ko mës a yónnee. daf ko mës a yónnee. ay camion dugub ay camion dugub. taalibe yi dégg ko. taalibe yi dégg ko. te jamono neexul te booba jamono neexul. ñëpp riir ñëw ñëpp riir ñëw. waa Dakar waa Ndakaaru. waa Njàmbur waa Njàmbur. ñu joxe dugub ji ñëpp joxe dugub. mu joxe dugub ji muy joxe dugub ji rek. ba mu jeex ba mu jeex. mu woo Al Baye Mouhamed Ndaw mu woo Baye Mouhamed Ndaw. ni ko dugub ji nga bayoon ni ko dugub ji nga bayoon. andil ma ko andil ma. muy juróom-ñaar fukki bërigo muy juróom-ñaar fukki bërigo. Serigne Alpha Mamadou séddale ko ba mu jeex takk xoolal xoolal bay ni mu méttee bay ni mu méttee naaju nawet naaju nawet ni tàngee mu tàngee nga bay nga bay juróom-ñaar fukki bërigo bërigo ñu joxe ko ci sa kanam mu neex la mu neex la amul lenn loo cay. amul lenn lu mu ca contesté loolu bëgg la. loolu ak bëgg la. moo tax xol yi moo tax xol yi. nan ko defar nan ko defar. yàlla yàlla. sunu borom sunu borom. subhaanahu wa taala subhaanahu wa taala. amul amul amul amul benn intérêt. amul benn intérêt. xoolul xoolul. sunu jëmm yi sunu jëmm yi. laa yanzuru laa yanzuru. ila ajsaamikum wala ila suwarikum wala ila wala ila suwarikum suwarikum walakin walakin yanzuru yanzuru ila qulubikum ila qulubikum moo tax jëmm nee na moo tax jëmm lu man di toll lu man di toll yonent bi nee na yonent nee na benn lumb benn lumb moo ca nekk moo ca nekk bu baaxee bu baaxee yaram wi yaram wi lépp baax léppay baax bu bonee su bonee lépp bon na lépp bon na mooy xol mooy xol moo tax sunu borom moo tax sunu borom al iman imaanu billahi te amul lu ko gën a te amul lu ko gën a kawe ci jaam bi ci xol la koy def rek la koy def moo tax li mu bëgg ci ñun ci ñun ñu gëm yàlla mooy ñu gëm yàlla xababa xababa ilaykumul ilaykumul imaanan imaanan wa zayyanahu fi qulubikum xol yi xol yi nan ko defar nan ko defar ñoom ñoom bëgg gi nu bëgg bëgg gi nu bëgg mag ñi mag ñi seen xol seen xol moo defar woon moo defar woon ba yàlla nekk képp ku nu xool képp ku nu xool yàlla nekk ci yow jox nañ la seen lépp wa allafa wa allafa bayna qulubi bayna qulubi law anfaq law anfaq maa fil ardi maa fil ardi jamian jamian bëggante nee na bëggante yàlla tax te yàlla tax wallaahi wallaahi ku yàlla bëggul ku yàlla bëggul nammul ci yow yiw nammul ci yow aw yiw mënoo ko mënoo ko waaye nit ku nit ku bëggul yàlla waaye nit ku bëggul yàlla nit ku defarul sa xol nit ku defarul sa xol doo am atuma doo am am doo am ab tuma nii doo am ab tuma na doo am salaama doo am salaama doo am sakina am sakina sahaaba yi de sahaaba yi de li taxoon li taxoon jaamu yàlla jaamu yàlla seen seeni soxla seeni soxla seenug jaamu yàlla seenug jaamu yàlla daawu ko xam daawu ko xam danoo amoon danoo amoon as sakina as xam ni xam ni yàlla moo leen teel yàlla moo leen teel boppam lépp loo xam ni. lépp loo xam ni. nekk nan ca. nekk nan ca. ba yàlla woote. ba yàlla woote. bàyyi nan loolu. bàyyi nan loolu. te dara du leen ca raw te dara du leen ca raw. huwa allazi anzala sakinata fi qulubi muminina li yasdaadu imaanan baada imaanihi saxaabatul kiram li taxoon ñu bëggante njariñal àddina njariñal àdduna bëgg jiite bëgg jiite bëgg daraja fu mu leen fekk fu mu leen fekk fa la leen yàlla defoon na ci ñoom attuma niina attuma niinata attuma niinata moo ngay dudd yàlla moo ngay dudd yàlla. non stress non stress. doo am benn stress doo am benn stress. doo am njàqare doo am njàqare. falaa tahinu falaa tahinu. walaa taxzanu walaa taxzanu. wa antumul wa antumul. alawna alawna. wa antumul wa waxoon na ko waxoon na ko. ne ku judd ne si àdduna ñu fab la ñu fab la. yàlla bindal la yàlla façon waruwaay ay façon waruwaay. nga jëfandikoo nga koy jëfandikoo. nga faatu nga faatu. ñu yanu la ñu yanu la. dugal la bàmmeel dugal la ci bàmmeel. boo suufee mu ne na boo suufee. yaa raamal sa bopp kon nan gën a góorgóorlu kon nag ya nañu gën a góorgóorlu gën a bàyyi yàlla nañu gën a bàyyi yàlla xel xel jox ko jox ko gëddaam gëddaam jox ko jox ko place bi mu am place bi mu am ci ñun ci ñun te mooy ñu nangoo te mooy nangoo nekk jaami yàlla ay jaami yàlla bàyyi pexe yi bàyyi pexe yi bàyyi settantal yi pexe pexe sottalul dara sottalul dara. dalay sànq dalay sànq rek. wa iyaaka wa iyaaka. tadbiiran tadbiiran. famaa huwa famaa huwa. bi naafiin bi naafiin. moo tax mag ñi moo tax mag ñi. lépp lu mas a arrivé lépp lu mas a arrivé. ñu ñu ñu bàyyi ko borom rek. kon nag kon nag xol bi jubóog xol bi nga xam ni mooy jubóog yàlla. nga xam ni nga xam ni. du fàtte yàlla mukk du yàlla ci jaam yi ci jaam yi. fàtte yàlla mukk fàtte yàlla mukk. ci àddina bi ci àddina bi. fàtte yàlla mukk du fàtte yàlla ci njaboot gi ci njaboot gi. du fàtte lépp nag ci lépp nag. day gëm yàlla dafay gëm yàlla. day sell dafay sell. warabat naa ala qulubihim isqaamu kon dañuy sant yàlla kon ñu ngi sant yàlla bu baax. Baye sëñ Ndaw sëriñ Cheikh Ndaw ñu ngi lay sant ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm. ñu ngi lay gërëm. doomu canaba nga doomu canaba nga fii nga jàngee fii nga jàngee fii nga yaroo fii nga yaroo macha allah macha allah waaye njabootu waaye nag njabootu canaba kenn jëppiwu la kenn ci man ngaa maslaa man maslaa am nga diine am nga diine am ngay teggin am ngay am nga orom am nga xorma loolu nag loolu nag dañ ko dañ koo def ci yow koo def ci yow kon sant yàlla ñu ngi sant yàlla nag njabootu Baay mu ndaw njabootu Baay mu ndaw mu ndaw moo Baay mu ndaw moo ma wax ma dégg ma dégg gërëm na ñëpp gërëm na ñëpp sëriñ Alpha nekk ca booba nangoo yanu nangoo yanu nangoo uuf nangu naa uuf du jàmbat dara di jàmbat dara sëñ Alpha sëriñ Alpha di ku baax di ku baax sëñ Madoun sëriñ Madoun macha allah macha allah nekk ku sell nekk ku sell nekk ku baax nekk ku baax nangu nangoo jaamu yàlla nangu jaamu yàlla sëñ ba dikke noonu sëriñ ma di dikke noonu sëñ ilimaan sëriñ ilimaan ak ñin ko bokkal ak ñi nu ko bokkal loolu rek loolu rek mooy sutura mooy sutura ndax booy xool alxuraan ndax booy xool alxuraan yonent bi ñaanee su yonent bi ñaanee ñu baax baax ñi fu nu fu eh, ñaanal nan ñaanal nañ seen bopp seen bopp seen i waajur seen wayjur seenu njaboot seenu njaboot ba abdourahim nag ba abdourahim nag da wax ni da wax ni boo tëbee boo tëbee sa butit lonk sa butit lonk Tobago. wallaay Tobago mooy ku jàll. mooy ku jàll. tas ak njaboot tas ak njaboot. jàllale woo jàllale woo leen kon ñu ngi sant ñëpp. kon daal ñu ngi sant ñëpp. ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp. njabootu Baay Alpha Mamadou njabootu Baay Alpha Mamadou nag. ñi ngi sant Baye Mouhamed Ndaw ñi ngi sant Baye Mouhamed Ndaw. ndax defal na sëñ Alpha Mamadou ndax defal na sëriñ Alpha Mamadou. loo xam ni loo xam ni. lii mu njaboote lii mu jaboote. bu nu woon bu nu joxul woon. benn cër benn cër. njabootu Baye Alpha Mamadou njabootu Baye Alpha Mamadou. ànd ak nag ànd ak nag ñu jox leen cër. ñu jox leen cër. ci lépp luy aajo luy aajo. lépp luy lépp luy yitte. li xew ci ñun li xew ci ñun. ñu taxaw ñu taxaw. minal bidaaya minal bidaaya. ilan nihaaya ilan nihaaya. même bu loolu amul woon loolu tamit loolu amul woon sax. Baye mu ndaw Baye Modou Ndaw war tax naa tax. sëñ Cheikh sëriñ Cheikh. ak njabootu Baye mu ndaw ak njabootu Baye mu ndaw. lu ñu yëngal lu ñu yëngal. mu ñor ñu mu ñor ñu. ñu taxawee ko ñu taxawee ko. sunub sag la sunub sag la. buñ ko defee suñu ko defee. sëriñ Alpha Mamadou sëriñ Alpha Mamadou. lañ koy defal lañ koy defal. waaye man mii teew waaye man mii teew. teewal naa ñëpp maa teewaaleel ñëpp. kon lépp mat na. kon lépp mat na nag ñu ngi lay gërëm bu baax. ñu ngi lay gërëm. sëñ Pape Mboup. sëriñ Pape Mboup. ak ñi ngi ko bokkal ak ñi ngi ko bokkal. maa ngi leen di sant maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di gërëm ni ngeen ànd ak Cheikh ni ngeen ànd ak Cheikh boo ngeen bokk ndey ak baay ngeen bokk ndey bokk baay seen waajur seen wayjur baay Ousseynou Mboub baay alxaaji Ousseynou Mboub dénkoon leen ko dénkoon leen ko ànd boobu ànd boobu yàlla na gën a sagu yàlla na gën a sagu yàlla na gën a rafet yàlla na gën a rafet sëñ Mouhamad Ngom sëriñ Mouhamad Ngom sëñ Saliou sëriñ Saliou ñi ngeen ko bokkal ak ñi ngeen ko bokkal borom baax borom baax ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay nuyu lay ziyaara ñi ngi lay ziyaara da baax rek da baax yow moo tax moo tax nga mën a wax nga mën a wax mbaaxu ñeneen mbaaxu ñeneen ñi. ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di sant. di leen di gërëm ñu ngi leen di gërëm. bokk jàng fatiha ñan bokk jàng fatiha. salaatal fatiha jàng salaatal fatiha. jiital ci aajo yëpp jiital ci aajo yëpp. ñaan yàlla. Eh, ñaan yàlla nag. at mii at mii. yàlla na nekk yàlla na nekk. sanata xayri sanata xayri. wa baraka wa baraka. wa yumnin wa yumnin. yàlla man na ko yàlla nañu ko yàlla defal na ko yàlla def. yàlla na ko yàlla def yàlla nañ fi teewaat yàlla at yu bëree bëri at yu bëree bëri. ñi nga xam ni ñi nga xam ni. ñoom la seex ñoom la seex. tuddeewoon bis bi tuddeewoon bis bi ak ñi ko dara jaale ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi leen di ñaanal yàlla faj seen yàlla yàlla faj seen aajo nee teraanga yi ñu def ci bis bi yàlla wuutal yàlla na yàlla wuutal kontaan nañ kontaan nañ yàlla na yàlla kontaan yàlla na yàlla kontaan a'uuzu billahi mina shaytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim amin bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana ighfir lana sunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufun rahim rabbana inni askantu min durriyati bi waadin gayri zi zarin inda baytika almuharram rabbana li yuqimu salaata fajal afidatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarati laalahum yazkurun wa iza raw tijaratan aw la wa iza raw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka xaayiman qul ma inda allahi xayrun min allahwi wa min attijara wallahu xayru raziqin la yarzuqannahum allahu rizqan hasanan wa inna allaha huwa xayru raziqin inna haza la rizquna ma lahu min nafadin wallahu laysa la ilaha illa huwa alimul ghaybi wash-shahada huwa rahmanur rahim wallahu laysa la ilaha illa huwa malikul qudus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikuna ya rabbi iftah lana ababal khairati wat taysiri wa sudd anna ababa shari wa tansiri waxnina min fadlik an haramik warzuqna wa anta khayru raziqina ya rabbi amin bi hurmati allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq